taamu taskatu xibaar yoo xam ne ñu nga ca biti réew déjà loolu yow xalaat nga ci am waaw man de wax dëgg yàlla mbir mi wax naa am na ma ci jotoon na laaj man leen man du wax dara président Macky Sall yéen laa mere ndax damaa yaakaar ni ginnaaw jéggi na leen fi dem France 24 ak RFI di wax yéen itam def leen ko ne comme yàq bu forox rek c'est-à-dire parce que bu ñuy wax waxu Sénégal waxu Sénégal na ko seen TV wala ci rajo yi télévision nga c'est-à-dire journaliste Sénégal dama bëgg ñu am tuuti fulla bu leen fi président ne ñukk ne yàkk bu fa dem France 24 wax wala RFI nañ ko fa ne ñukk ko RFI mais président loolu dina fekkee moom mooy jiitu réew a non xam naa bu baax ko ne yàkk bu farox dootu ko ñaareel su probable probable euh, couvre-feu boo xam ne 18 heures lay commencé ba 7 heures du matin muy soxal askan wi euh, ne serait-ce que pour nga bëgg information dalay jaral nga dem jëli ko xam naa li ma lay wax ah. gis président buy wax RFI li mu bëgg mooy Sénégal dégg li muy wax su ngeen ab wala France 24 bu ngeen ko fa newoon ñukk ne yàq bu fa bu ëllëgee dootu ko defati suñu waxatee France 24 dana leen ci boole wala RFI parce que man bëgg bu ñuy wax ci problème réew mi ñu waxee ko ci kàllaamay réew mi muy journaliste Macron ñemewu la jël seen TV di jox ak waa France mm-hmm. ñemewu ko lu tax ñu gële ñemu ko parce que waa France mais am na ñuy naan aussi préfet wu France la ah. waxuma ko waaw donc xam nga yooyu sax benn affaire la yooyu benn affaire la kon damaa jàpp ne Fatou Fatou Abdou euh, loolu dama ko jiite rek mais fondamentalement problème wu li mu wax ne day ñoom def na état d'urgence def na couvre-feu nañ ñu wax bilan état d'urgence bi ci ku la indi. ci ko taxoon a jóg. li ko taxoon a jóg mooy lan benn. Mhm. fi wopp ji yemoon ta yemoon ci jamono jooju mu yem fa. Mhm. fi àggagul bañ faa àgg. d'accord tey bu nu xoolee. ñi woppoon yokk na barab yi wopp ji nekkoon yokk na kon nañu xool ndax est-ce que état d'urgence bi couvre am na njëriñ su amul njëriñ ñu dindi ko wutal ni ñu ay masque bàyyi la ñu dox ci seen soxla. très bien Mohamed. voilà très rapidement euh, il faut que nag président Moustapha Diakhaté wax ñu ànd taxaw suñu affaire fan la toll. ak ñan ñoo fa nekk ndax ndax moom rek koy jiiteem déet ak activité euh, ànd taxaw suñu affaire. Euh, bëgg nañu xam tuuti bëgg nañu am information par rapport ak. Euh, euh, Mohamed. <laughs> xam nga liy ñuul ci kawar gi yow moom eh, ci meew mi moom nga ci bëgg a dugal. <laughs> gis nga le 7 mars keroog Macky Sall wax ak askan bi man laa jël bër politique. ñi ma ciy liggéey yëpp dama ne suspendons tout bis bu ñu ba xeex coronavirus bi bu mu jógee fi su boobaa ñu delluwaat nag ca loola moo ma gënal quoi pour le moment daal. li ma gën a intéressé mooy jàngoro ji dugg ci réew mi te teg nu lu nu dara mësul teg. ñu fexe ba teggi ko fi su ko defee nag boobaa ñu ñu jëm ci wàllu. day demee en 30 euh, secondes Mohamed mhm. li ci gën a am rawati bët da nga ci gis ba doyal incha allah <laughs> day demee en 30 secondes. <laughs> bon alors euh, économistes yi yàgg nañu wax ni nguuru Sénégal amul xaalis saa bu ñu mësaan wax te dañuy tudd tension de trésorerie ñoom ñu nekk ci nguur gi tamit di ko weddi tey fond ñëw na bu 1000 milliards. est-ce que ak loi d'habilitation bi président Macky Sall mën ci profito jël fonds yi def ko feneen foo xamante ne nii bokkul ak lutte bi. déedéet xam nga li ma jàpp mooy lutte bi moom mooy arikala ji maanaam dërëmi dërëmi mille milliards yi moom lépp nañ ko dugal ci lutte bi loolu nag dafa am loo xam ne xam nga seetlu ngeen ko yéen ñëpp malheureusement duñ ci bàyyiwul xel gis nga keroog bi ñu commencé yëfee ak léegi gisaguma ab sénégalais boo xam ne jóge na ci état bi ci mille milliards yi lu ñëw ci yow loo xam ne pour xeex coronavirus bi. Euh, justement est-ce que mënuñu ñor ne xaalis bi xaalis bi dina dem feneen foo xamante ne même ñi ñi Pape euh, l'éternel indi ñi di contre. <laughs> mais mairie sax nga gis ñu joxe saabu. waaye état bi moom pour le moment. gisaguma sénégalais bu mu jox saabu jox ko eau de javel jox ko gel gisaguma état ku mu jox masque. te loolu mooy jàng mooy xew kay jàngoro bi. mooy base bi kon Ndeye Dime Ndeye Dime juste une petite question juste une petite question parce que euh, ñu ngi quand même euh, au terme de l'émission juste une petite question parce que euh, c'est important ñu ñu revenir ci président parce que dañoo gis discours kii di Mansour Faye ñu bëri jàpp ne que discours bi mu am jour boobu de ci ministère de de la santé convaincre ñu bëri yow naka nga jàngatee discours boobu. xam nga man Mansour du moom ay convaincre. est-ce que bokk nga ci ñu convaincre xam nga Mansour comme du moom moom mooy convaincre man li ma jàpp mooy Sénégalais yi Macky Sall lañ fal Macky Sall lañ jox seenu xaalis lu ca yàqu lu ca réer moom lañ ko war a laaj xam nga man nee ne du ma dóor wati fi jaan tam gis jaan alal ji lu ci am ku ci mën a def lu jaaruwut président Macky Sall lay doon kon buñ fi nekk di wax waxu di wax Mansour Faye Mansour Faye kan tan joxewul marché joxewul marché ceeb bi joxewul marché transport bi nguuru Macky Sall gi mayu ci kenn lu tolloog tarfa talay ni boo mën a jël mille milliards di ko dugal fenn kon nag bu ñuy wax nañu wax Macky Sall xam nga souvent nag Sénégal euh, ñun waa Kajoor xam nañ ci dara maanaam boo bëggee xas buur sa ñim boo ko da naan buur ayut dag yaa ay boo bëggee xas buur sa ñim woo naan buur ayut dag yaay mbir mi lu ci yàqu Macky la lu ci baax Macky la na ko assumé mais ci affaire marché bi ni mu tàmbalee moom te jubut loolu moom c'est de sa responsabilité. bu créé woon comité bu créé na comité. ñu ngi lay jaajëfal président. fond de riposte bi xaalis bi nga xamante ne ñu bëri ñu ngi posé ay question wax nga ko léegi du saabu du dara lu ñu jox askan wi est-ce que tey ak loi d'habilitation bi mënuñ ci profité jël xaalis bi yóbbu ko feneen. président très rapidement. loolu moom xëy na sax mën naa nekk waaye nag jàpp naa ne nag euh, euh, maanaam loolu du ko def maanaam dañ ci rafet njot waaye nag rafet njot gi moom nan ci boolee yor sunu yat rek maanaam di reeteet pour nu séenee loo xam ne normalut nan ko reeteet reeteet moom ku xam ku xam ne ku jàpp ne baax na da nga koy laaj jaan très bien def ñu rey ko rek am na solo <laughs> oh. merci président euh, waxtaan bi euh,